رؤوف رحيم شافع ووصول وحن الذي نور الوجود متلسم بي في حجاب الجسم فهو وكيل سباتي عن بدر الدجى الكفر قد نفى كمن في طيه وقام يجول فدنياكم هاكم إذا عاقني القضاء عن السور من دار الله الحبيب قليل وهذا الصفاء قبل نشأة آدم وما الله أعلى قل أنام يزيد نروم مسنا المصطفى بعدما أتى سناء من الهدي هدي علي جميل أتستنا الدهر أمن حين حمله عجائب تهميك الحياة وتعود فلله ما قد كان قد كان خليل نار مصلى الموت بعد ما أتى سناء من الهدي علي جميع macha allahu jërëjëf xaaj euh, ñi ngi bég lool. ci loolu nga xam ne yëkkati nga ko. Mhm. muy wane rek cofeel ak euh, tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo hmm. lay xamal ni mag ñi kenn du ñoom déedéet ndax dañ jël seen bopp rek sarax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxit ñu am ci moom li ñu am ci moom hmm, hmm, kon nag macha allah yéen it bu ngeen koy yëkkati a ah, mbégte rek lañ ciy àndal ñu ndokkeel la ci ndokkeel ci mbokk yu baax yi nga xam ni it ñoo la ci gunge macha allah euh, macha allah tey buñ doon wax euh, tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ni yaa ngi def lu ama am solo di ci bay sawaar cees gi nga nekk ñëpp ràññee la ci mhm. ak feneen fu dul Thiès mhm. maanaam réew mi yëpp rek ak biti réew mhm. euh, tey ndax mën nañ xam lii ba nga ci dugal lan ba nga ci dugg lan moo la ci dugaloo waaw jërëjëf Oustaz euh, di kontaan ci euh, question boobu ñun tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dimbali nañu dañ koo donn dañ koo donn ci suñu wayjur muy suñu baay Ibrahima Mbodj yàlla na yàlla yokk leeram yaatal bàmmeelam boole ko ci min jiwaari sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu fekk muy tàgg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. eh, daan eh, bokk ci kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil mhm. ci ñi nga xam ne ñoo daan wayal Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil mhm. moom union bu Thiès eh, jumelage bu Thiès bu daayira Seydi Jamil moom moo ko yoroon moo daan way ñu judd nekk fekk ci fekk ko ci tabarakallahu daan ànd ak moom depuis ñuy xale ba bi ñu fi ñu toll nii tagg yonent bi rek la ñu la ñu la ñu la ñu xam loolu rek mooy suñu suñu suñu objectif loolu rek la ñuy def mhm. ndax fa tabarakallahu liñ naan kër kër goo juddoo fekk ñëpp jël benn yoon fa tabarakallahu muy yoon bu baax alhamdulilahi rabbil alamin ndax mën nañ judd fekk euh, suñu wayjur nekk ci beneen yoon te bu boobaa amaana mën na am ñu nekk ci waaye alhamdulilah di ko sant di ko ñaanal ba ñu juddoo fekk ko muy tàggkatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu judd di ko fowee fa tabarakallahu ba ni ñu màggee nii mhm. euh, bi mu wuy jee boroomam euh, ñu wuutu ko ci ci tagg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nam ko daan defee mhm. wala sax ñu ne anam bu anam anam anam bu bu raw bam ko daan defee ndax léegi ku ne xam ne tagg tagg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. toll ci jamono joo xam ne bu na ko mag ñi daan defee ak mm-hmm. ñun suñu jamono ji léegi dafa xaw a wute ndax mag ñi daanaka mën naa ne ci daayira rek lañ doon yem <laughs> wala waaye léegi nag ñun ah. dem ba ci tant yi mm-hmm. dem ci euh, télévision yi comme nii macha mm-hmm. allah kon yaakaar naa ni ñoom ñun liñ ci am ñoom amuñu koon waaye lépp nag ci seen barke la macha allah macha allah muy lu am solo da wax lu am solo loo xam ne da nga ko doonu eh, te ndono li mën nañ ñi mag moo la ci teete dëgg la Euh, maa ngi ciy jaar di nuyu bi nga tuddee waa Kër di Jamil maa ngi ciy jaar di nuyu sunu yaay. Euh, Adja Ndeye Marème si ndeysaan euh, Jamil moom it mhm. macha allah. ñu ngi koy day topp jotaay bi bu baax a baax. ñu ngi koy ziyaara bu baax. Mhm. mais ci foofu kañ nga yëg ni. Mhm. gannaaw biñ la ci toqantalee kañ nga yëg ni nag war nga commencé nag taxaw ngir tagg yonent bi sallallahu alayhi wa waaw bi ma ko yëgee mooy bi bi yàlla defee suñu wayju dugal ñu yóbbu ñuy daara. ñu jàng ci euh, daara suñu bàyyi oustaz mbaykan tabaarakallaahu euh, ci jaar ci loxoy oustaz Pape Ayouba Guèye moom it mu génn àddina bu yàggul yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna te yokk leeram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu demee ba am suñu baccalauréat tabaarakallaahu mhm. ci la ñu donte daan nañ ko euh, topp ci ginnaaw góor gi mais bi ñu amee suñu baccalauréat ba mu wóor ni àlluwa gi dëgër na tabaarakallaahu ndax comme ni ñu ko waxee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. boo koy def yaakaar naa war nga am àlluwa bu sori dëgg la ndax euh, maxaarijul xuruuf yi mën a génn mhm. Mhm. tabaarakallaahu nga mën koo teg ci ci ci anam bi nga xam ne mag ñi bañ ko doon taalif anam boobu la ñu tolloon di bind euh, xasida yi tabaarakallaahu nga xam ne doo ci damm benn baat naxu beeg sarf bi yëpp day génn xuru mantiq beeg bayaan bi lépp day génn tabaarakallaahu ci loolu jamono yooyu nag la ñu commencé tabaarakallaahu di ci fësal suñu bopp di ci fesal suñu bopp di def ay euh, single tabarakallahu euh, ku single yi passé tabarakallahu ñu def ay clip mhm. euh, clip yi tabarakallahu Sénégal yëpp daanaka yaakaar naa ne teg nañ ci seen i bët mhm. ci noonu daal la ñu la ñu la ñu la ñu jaar pour nekk tey toll fi ñu toll ci tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. sallallahu alayhi kon muy lu am solo gannaaw baccalauréat bi nga yëg ni kon taxawaay bi war na dellu ci wàllu boobu sànq danga tudd lu am solo te defe naa loolu waa jamono it war nañ ko bàyyi xel mhm, mhm, mhm. mooy euh, li suñu maam Seydou Cheikh waxoon ni booy tagg yonent bi na ko tagg ci xaalam te bañ ko tagg ci sa xaal te sàng da nga tudd ci wàllu maxaar ci yeeg ci baree bari xëy na ñenn ñi danañ bëgg a way mais duñ ko sàmmonteel euh, foofu it lan mooy li nga xam ne it di nga ko ñaaxee ñi nga xam ne yaa moom ñoom yéen a li nga xam ne mooy waar waaw li ma ci li ma leen di ñaax rek mooy Serigne Abdoul Aziz Al dafa mës a wax ni kuy tagg yonent bi na nga ko taggee Euh, maanaam na nga respecté euh, maxaarijul xuruf yi mhm. respecté baat yi wax tagg ko nañ ko nan na ko boroom bindee ndax martaba ba boroom ba boroom tolloon ba doon bind xasida bi nga mën a am ci ci yiw boobu mhm. waaye léegi nag jamono ji euh, dañu bari ñoo xam ne dañuy déglu rek di wayaat waaw di déglu ci kaset yi di way te léeg-léeg ki ngay déglu mën na am mu juum ci xasida bi wala mën na am xasida bi du yegg fa mu war a yegg mu dagg nga déglu lool nekk topp ci macha allah wala moom ci moom mi koy way sax mu juum ndax al insaanu insa eh, eh, ah, nunta sumiyal insaanu insaan li kasrati nisyaan yi nit dafa bari li muy fàtte mën nga ko mokkal sax mais ci biir ci biir way yi am lu la bëlëfe ba nga xaw koo fàtte mm-hmm. léegi nag ki nga xam ne mooy déglu pour wayaat ko kooku day am problème mu tabarakallahu pour wax ko na ko war a waxee waaye bu fekkee ne dégg nga xasida xasida bi nga fexe gëstu ko dem ci ki nga xam ne moo koy wala wala nga gëstu ci internet bi tabarakallahu ba gis xasida bi liir ko càmbar ko ba nga xam ne xaraf yi leer na ci yow hmm. euh, di ko mën a way ni ko borom ni ko borom bindee hmm. tabarakallahu yaakaar naa loolu mooy gën kon di ñaax rek nañu jàngaat parce que bu bu jàng amul rek loolu doo ko mën Mm-hmm. bu jàng amul loolu du yomb. muy lu am solo kon nag mm-hmm. ñun ñëpp ñu bokk maase rek bàyyi ko xel. Mm-hmm. ndax itam ay ndongo daara lañ. te daara moom dañ naan fa dañ fa jàng bind. mbaa ñu tari fa bind. wala ñu nafar fa bind. kon nag su ñett yooyu amul ci daara rek. na la borom daara ji wax moom. lan lay doyee daara. Euh, bëggoon nañu xam itam ndax lii ngay def dafa yem Cees kase. wala léeg-léeg nga doxantu ba dakaar ak gox yi ko wër ak. wala léeg-léeg nga génn réew mi. maanaam yëngu-yëngu yi bëggoon nañ xam ci fan ak fan la yem waaw macha allah euh, alhamdulilah rabbil alamin yëngu-yëngu yi génn na cees daanaka mën naa ne wër na fépp ci Sénégal mhm. mais nag bitim réew rek lañ joteegul parce que euh, xëy na incha allah ci kanam yàlla dina ko dina ko mottali <laughs> ndax loolu rek mooy suñu réer dem ba ba taxaw ah. biir digg États-Unis wala France tabaarakallaahu ci nit ñu xonk yi ah waaw ma ngoog waaw waaw gàmmu télévision yeeg yooyu fa tabaarakallaahu di fa di fa di fa tagg Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi moo ni toll loolu moom defe naa kilifa yi ñi ngi seetaan te ñi ngi koy dégg waaw ma ngoog tey ñu mel ni yow moom mhm. ak gaay yi nga àndal mhm. kenn dem biti réew di fi bàyyi déedéet déedéet ndax def am na mhm. laltaay wallaay wallaay te lu am mm-hmm. ci laay rek bu mm-hmm. dëgër mm-hmm. loolu baax na ci li nga xam ne dina koy faral def incha allah ah ñu nga bégalaat ñu rek waaw waaw incha allah ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam naa ma jox ko Pape Gora Diagne waaw moom it mi ngi si kër gi ndeysaan macha allah di sa wëllëre tabarakallahu kon nag ñu jox ko ko macha allah aywa على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلم مولانا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصبيم على نبي وأجمعين سلام ربنا دائما عام عيد العيمالنا على نبي وعلي أيوة أجمعين سلام ربنا دائما عام بسببه لله لله در مجيب خالص إله إن رسول بقدر المصيح معلمنا على نبي وعلي أيوة أجمعين صلاة ربنا دائما عام بصحبه حيدر مجيب قال سائله إن الرسول بقدر المسلم الحيمان على نبي وعليم آه أجمعين سلام ربنا دائما عام سيدي الحاج مالك منا وكان فحما حبيب الله مرشدنا مفاخما يا تاتا سيدي الحاج مالك منا على نبي وعلي أيوة أجمعين بنا دائما عام بسببه بابكر قليل تدوير وجه ليس كالثبات والنول في الوجه يا واسد أجمال على نبي وعلي ليس أجمعين سلام ربنا دائما عاما لسابه بكر لما مثل ريق نبي الله من عطار الخلق كان أسنبا دخمار سيد العالم علينا على نبي وعلي أيوة أجمعين سلام ربنا دائما عام سيد الحاج مالك نينا ما مثل ريقي النبي الله من عطاو من كان أسنبه دخمار سيد الحاج مالك نينا على نبي وعلي أيوه أجمعين سلام ربنا دائما عام سيد الحاج مالنا إذا تكلم يمري النور يخرج من بين صنايا وما في القلب سيد الحاج مالنا على نبي وعلي أيوة أجمعين سلام ربنا دائما عاما بسر شيخ جاني إذا تكلم مريا النور يخرج من بين صنايا وما في القصيد العايمة لمنان على النبي وعلي أيوة أجمعين سلام ربنا دائما عام بفضله تبسم جلدك البدر سيد في سيد العالم على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عام بسعده من أخد شراب إليه رايب ونسطورا يقول نبي جاء المالين عد زراب إليه رايب ونسترى يقول نبي جابر مالي خديش رأي هاب إليه رايب ومستورا يقول نبي سيد العالم مالنا حد سرعاب إليه رايب ومستورا يقول نبي جابر محمد bil ummati ngalama jaajëfe Maodo yaa nu xamal yonen mi ma jaabil ummati jaarama wawe jaajëfe Maodo yaa nu xamal yonen mi jaabil salo xeeja abil ummati jëfe Maodo yanu xamal yonen bi jaabilu umami jaarama wala jaajabe Maodo yanu xamal yonen bi jaabilu umami aca man samba adduna aw ma fi geneen ge ku dul sayid wax la ko ba mu xoole la ko ku dul sayyiduna Muhammad may wax la ko ba mu xoole la ko ku dul sayyiduna Muhammad sooraka ad adna laaxira ma doy geer daa abil da te nga la ma بالأمم تجارما ووجد المولى ينق مليا بجاب الأمم أتلقكنا من رسول الله يلدل صلقنا وقليا كنا من رسول الله يلدل صلقنا وقليا كنا من رسول الله يلدل صلقنا وقليا كنا من ku bañ ma safale ki la gën mooy borom raw du beeja abil ummati galama ja jëfe mawdo yaa nu xamal yonen bi sala wala war na ma jaabil ummati jaarama lawe ja jëfe mawdo yaa nu xamal yonen bi jaabil ummati jëfe Maodo yanu xamal musawa wala lan te ajaabilu umami mawdo yanu xamal yonal bi jaabilu ma abdu ne su dellu woon di ndaw la la lay dem te dag yonal ba su dellu woon di ndaw la mustafa te dag yonal ba su dellu woon di ndaw la lay dem te dag yonal ba tax muy def ay abiyaat yonen be jaa abil kaje ngaalama jaa ajebe mawdo yanu xamal yonen bi salaa wala warama jaa abil umami jaarama wala jaa ajebe mawdo yanu xamal yonen bi jaa abil umami ataway su yak neexe takk jaajëfe sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yenn jaajëfe sayyiduna Muhammad jar na jaraw lakk jaajëfe sayyiduna Muhammad ma julli ci mannanu lamin borom raw du bee jaabil ka te galama jaajëfe mawdo يا مقملي أنا الصلاة خير الأنبياء جاء بالأمم وهو يا المولى yanu xamal yonen yi jaabilu ma na xaddi shira aba ilayi raibunu wa nasutura yaqulu nabiyun jaabil umami macha allahu nabiyun jaa bil umami moo tax nag uh, ba mu ñëwee mm-hmm. borom buur du wax ni bushra lana ndeysaan maachar al islami inna lana ndeysaan min al inayati ruknan gayru munhadim bushra lana maachar al islami inna lana min al ginayati ruknan gayra munhadim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 الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو mi من الديم baarakallahu macha allah haj samba ñi ngi bég lool tabaarakallahu ci loolu nga yëkkati mm-hmm. ndax euh, way dégg baax na ci lool liñ naan euh, oreille musicale ah, waaw <laughs> waaye tamit macha allah sa gars yi tamit ñoom itam kenn demul des yal na yàlla barkeel <laughs> euh, nañu xam itam ndax way mm-hmm. yi air nga yëkkati mm-hmm. loo fental sa bopp la mhm. wala ndax danga fekkoon lu fi nekk mhm. nga am loo ci dolli mhm. ba mu gën a neex ci dégg-dégg yi am na mbokk mu nekk ci ligne bi 33 la 821 44 77 ñu jël ko allo allo soxna si soxna faatu jiite bismillah fan ngay woote fan ok ma bàyyi la ak euh, sàmba waaw salaamaaleykum. ndeysaan waaw waaw waaw waaw waa Calebasse bi. <laughs> ndeysaan jërëjëf jërëjëf. Mhm. amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin amin amin yaa rabbal amin amin amin jërëjëf ndeysaan macha allah daf maa woo dafa invité na la ma soppi bi allah ñoo gën a bég. amiin alamin amiin amiin waay. kontaan naa trop kontaan na lool ci appel bi macha allah. macha allah wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf. wallaay ñoo gën a bég jërëjëf jërëjëf wallaay ñoo gën a bég ñoo gën a bég yéen ñu baax ngeen ndaysaan koor gi maa leen di defal conférence man ak oustaz Abdoul Aziz ndaysaan euh, Ousmane oustaz Ousmane Ndiaye mhm. ndaysaan ndaysaan waaye ñoom it ñu baax lañ ñu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah kontaan naa trop ci appel bi macha allah jërëjëf macha allah amin yaa rabbal alamin amin amin amin incha allah incha allah dina am saw yàlla jërëjëf bég leen lool yàlla yàlla fay leen yiw amiin yaa rabbal aalamiin yàlla leen incha allah macha allah ñu nuyu waa Fann ok yëpp mm-hmm. euh, kon liñ doon wax léegi rek mm-hmm. mooy ndax loo fi fekkoon la mm-hmm. nga am loo ci dolli wala ndax am na ci yoo xam ne say fenti bopp la waaw euh, daanaka yi ñu fi fekkoon euh, moom lañu moom la ñu soppi amit te quelque yoo xam ne soppi nañ ko ci di ko way waaye yaakaar naa ni ak loo ci soppi tamit mënoo fee way loo xam ne ma mag ñi wayuñu ko woon dëgg la ci mel ni suñu baay suñu wala suñu maam Issa Laay mm-hmm. suñu maam Mbay Donde mm-hmm. ah, tabaarakallaahu ñoom Moussa Ale Mbaye mm-hmm. ah, ñooñu suñu mag eh, wala suñu papa sax laay wax duut kenn Mbay ñoom Abdoul Aziz Mbay ci ñooñu lañuy la ñuy roy ñooñu ñooy suñuy kooku ci liñ bi allo waaleykum sang bi yal na yàlla nangu ziar tur bi ak fan ngay woote ah yow moom sama doom bàyyi nga <laughs> bisimilah sëñ Babacar. yàlla yàlla nangu ziar macha allah waaw. <laughs> ndeysaan waaw. ah d'accord. macha ah, allah ndeysaan. <laughs> ndeysaan macha allah. jërëjëf jërëjëf <laughs> ndeysaan ndeysaan waay kontaan na waay <laughs> ah di tàmbale ba léegi ay taalibe maam borom Tuubaa rek ñooy woote <laughs> ndeysaan macha allah jàll yàlla nangu ñaan yëpp ndeysaan macha allah macha allah yàlla yàlla kontaan jërëjëf waay bég na ndeysaan ah, muy ban noonu nalla nalla tàmbalee rek ndeysaan ah. ndeysaan ndeysaan ndeysaan <laughs> ah boobu de na nga ko ko yëkkati incha allah macha allah ndeysaan ndeysaan sëriñ Babacar ah loolu day am na solo macha allah jërëjëf kontaan nañ ci appel bi moom kay balaa ñuy tontu sax dañ lay yëkkati lool ba pare waaw waaw ndax sànq bi may tijji dama ne mag ñi dañ jël seen <laughs> bopp rek sarax ko yónent bi sallallahu alayhi wa sallam muy maam Seydil Hadji Malick di maam borom Tuubaa kon nag taalibe maam borom Tuubaa su duggee ne ah. day ñaan asmaali ah. yaay kenn diine ñu ah. zikaral ko ko kon na gaay <laughs> ndeysaan waaye nañ leen dem ci loolu bégal bismillah asmaali yaay kenn diine singaari yow la nu wóoloo. asmaali yaay ki nu diine singaari yow la nu wóoloo. ayca asmaali yaay ki nu diine. waaw singaari yow la nu wóoloo. asmaali yaay ki nu diine. sinaar yow la nu wolo asmaalik yaay ki nu diine sinaar yow la nu wolo asmaalik taalif ci téere ci gaal nañ ko seetloo. asmaalik yaay kennu diine singaari yow lañu wóoloo. waaw waaw li Maodo taalif ci téere xajul ci gaal nañ ko seetloo. asmaalik yaay kennu diine.

kon nag euh, Serigne Babacar Seck taalibe <laughs> maam borom Touba jëlal loolu ñu may la ko macha allah ñu ngi bég lool ci yow euh, kon li ma doon wax léegi mhm, mhm. ngay roy ak mhm. sunu wayjur yi nga xam ne ñoom Haaj Duut Kenn ñoom Abdoul Aziz Mbaye ak ñu ni mel euh, macha allah nga leen di roy di topp seen tànk waaw wallaay ndeysaan ak képp ku ñu dégg ngay wax lu neex ci yonent bi nekk naa ko man moom awuma rëyu ku mu dégg même bu fekkee koo xam ne yaa ma gën a féete ndaw sax ma dégg li ngay wax ci yonent bi mu neex rek dinaa ko woyaat dëgg la ndax yonent bi moo ni toll te milieu bi dafa yaatu macha allah yàlla dogal nekk mu am suñuy kii yoo xam ne ñun ñoo ko defal suñu bopp parce que daanaka clip yi ma jot a génne yu ci bari mm, yooyu yëpp man maa bindal sama bopp mm-hmm. baal moom ñu jël bismillah ci ligne bi allo allo waaw bismillah soxna si asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi ziar kon yow la kan ngay wootee mm-hmm. ah waaw soxna maam sama jigéen ndeysaan ndeysaan ah, yal na yàlla kontaan yal na yàlla kontaan macha allah amiin yal na yàlla nangu ñaan yi mm, mm, ndeysaan waaw ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay oustaz Abdoul Aziz jërëjëf jërëjëf soxna macha allah yal na yàlla nangu yëpp te boole ñu koy incha allah mm. jàmbaar macha allah jàmbaar la xeebul kenn wax dëgg yàlla. ndeysaan bu toogee ko bi mu def bu toogee bàyyi la loolu lay def macha allah. ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf eh, soxna maam. amiin amiin yaa rabbal alamin amiin amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin amiin waay. sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbal alamin amiin amiin yaa rabbal alamin amiin sallallahu alayhi wa sallam wallaay ñoo gën a bég amiin yaa rabbal alamin amiin waay jërëjëf jërëjëf soxna maam amiin ya rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin amiin amiin yaa rabbal alamin macha allah macha allah jërëjëf ngi def lool macha allah hmm. ah, yal na yàlla nangu ñaan yëpp te boole ñu ko ñun itam wallaay ah, kon li nga doon wax sànq clip yi nga hmm. jot a génneeg yëpp waaw yooyu yëpp daanaka mën maa ko bindal sama bopp maa ko taalifal sama bopp hmm. ba pare maa génne maa ma air ma ko wayee man maa ko man maa ko génnee mhm. maa ko wayal sama bopp maa ko maa ko defal lépp macha mhm. ci mel ni euh, yi ñu way ci Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour borom daara ji dama mhm. xam dama ne def naa ko sama wéeru dëgër loo ndeysaan man de doy nga borom daara ji sama weeru waay def ko sama weeru waay weeru dëgër loo ne de doy nga borom daara ji sama weeru e ma jukku di way doonoy yoneen be doonoy Cheikh Tidiane Cheikh Omar Maodo Mama Khalifa def naa ko sama weeru waay waay na dëgër waaw man de doy sama dara jay sama weeru waay kotiku fu wér ci waxi baayam maam da baaxoo acenena ku rdiyatun la min faydi cheikhina tijaane janna ko sama weeru waay na dëgëru loo waaw man de doy sama borom darajey sama weeru waay ñu ko def ci Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour borom daara ji ak yeneen yoo xam ni xam ne yaa ko taalifal waaw man maa ko taalifal sa bopp fental ko maa ko fental sama bopp waaye maa indi daaj bi tamit maa ko indil sama bopp mhm. waaw ak euh, yeneen way yoo xam ne way nañ ko Cheikh Sidi Mouhamed Mansour borom daaj ak yeneen nitu yàlla mhm. ci mel ni Seydil Hadji Malick moom laa mujjee def clip ci moom te moom ku ne moom démb ah, ku ne xam ne démb la woon anniversaire am <laughs> moo tax après incha allah dañuy dugg ci ala yow mu hóobi barakallahu wax ci si way Seydil Hadji Malick waaw kon jeex na nga xam ne moom moom dama ko dama ko sopp sopp goo xam ni moom liñ wax rek majhulul wajhul umma wallahi lazim wallahi wallahi wallahi ndeysaan wallahi wax na ko waaw sëriñ Moustapha Sy allah ta euh, doomam ju ji barki dem rek mi koy wax ndeysaan <laughs> ndeysaan <laughs> ñu jël moo ko moom allo mhm. salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax yal na yàlla nangu tur ak fan ngay wootee Haj Maodo bismillah yow rek la ñuy dégg allah bismillah ah, Maodo di di Serigne si Oustaz. ah ndeysaan. muy ku baax. ndeysaan muy sopp wax dëgg yàlla. wallaay ndeysaan wallaay. muy Oustaz Mbodj moom. wallaay fayal ma ko waay aju man suur sama soppe bi waaw wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay jërëjëf Hadj Maodo jërëjëf ndeysaan amin ya rabbal alamin amin amin amin amin ya rabbal ndeysaan yow ku baax nga ku baax nga suñu nit wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan macha allah wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan yàlla yàlla kontaan xaaj Maodo waaye fayal ma ko waaye sama waajooju <laughs> waaw yàlla yàlla na ko ziyaar macha allah oh, jërëjëf wallaay ndeysaan <laughs> waaw waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan xaaj Maodo ma Maodo tamit nuyu bu baax sa nuyul ma ko bu baax waaye ziyaaral ma ko ziyaaral ma ko. <laughs> ñu ngi leen di bu baax moom ku baax la macha allah. macha allah walaay ndeysaan yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel ndeysaan. amiin yaa rabbal yàlla barkeel. jërëjëf xaaji Maodo ñoo gën a bëgg ñoo gën a bëgg ñoo gën a bëgg. jërëjëf xaaji Maodo bëgg nañ lool ci yow macha allah. Mhm. Ah, kon ni ñu ko waxee woon léegi rek mhm. gi moom ci kanam. waaw incha allah ñu dugg ci moom bu <laughs> baax a baax ah, mais li nga wax ni dafa am solo mhm. ndax ah, sànq tàmbali nañu wax ci maxaari jeeg yu ni mel. waaw da nga daan gis euh, euh, ku ci mel ne maam Abdou. radiyallahu anhu su ma ñoom euh, Abdoul Aziz di way ci kanamam. Mhm. bu ñu yàqee benn masque sax. Mhm. mu taxaw loolu leen. wallaay la di rectifier waaw waaw tey nag ñu gis ni xëy na nañ ko wax nag. Mhm. mais yàqu-yàqu yi bari na lool. na lool bari na lool bari na lool ah, wax dëgg yàlla. ci ci ci ci way ci baree bari. ak masque damm masque yeeg. léeg-léeg damm baat yeeg. yooyu yëpp. Mm-hmm. Euh, tey aussi lan mooy doon aussi taxawaay bi ñu ci war ak ñi nga xam ne dañu gis ni maanaam dañuy jàpp benn xasida rek jël ci ñaari bayit rek wallaay wallaay di ko di ko di ko di ko di ko baaral di ko baaral di ko baaral ba daanaka mu jël trente minutes ndeysaan ndeysaan donc yooyu tamit euh, est-ce que tamit jotul tamit surtout ñu gën a delluwaat uh-huh. ci cosaan mhm, mhm. ci mag ñi nañ daan wayee dëgg la ndax defe naa faas gi rek boo fa demee àjjuma buñ jullee ba pare dañuy def géew dëgg la di tagg yonent bi ba tàkkusaan jot ñu soog a jublu def seen awraat mhm. soog a jublu ci xadara bi kon est-ce que jotul tamit ñun ñëpp ñu maase rek ñun ñëpp ba ci man mii sax <laughs> di soppee ñu maase rek dem tamit ci xasida mag ñi dem ci cosaan yi jàng xasida yi di ko way tàmbale ko ci bopp bi ba ba mu daanu wallahi azim wallahi wallahi oustaz li nga wax dafa am solo parce que itam euh, mokkal benn xasida euh, benn benn ba ñaari abyaat rek foo dem moom ngay way euh, te wax dëgg yàlla war nañ ko dépassé ci kuy tagg sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñuy gëstu dëgg la nañuy gëstu te bu ñu yem ci bindu ki nga ki nga ki nga doyloo kase mhm. masalan man mi nga xam ne Seydil Hadji Malick mooy sama sëriñ mhm. ma ne ci bindum Seydil Hadji Malick rek laa yem tey gis nga firnde bi macha allah ñi ñi njëkk a woote ci émission bi mhm. ay taalibe cheikhul xadim lañu. Mhm. noonu lañu mel jaxaaw macha allah. Mhm. Euh, man aw ma seen ci benn tariqa. mag ñëpp laay gëstu. li ñu bind li cheikhul xadim bind li Mame Baye bind li keneen ak keneen bind. Mhm. yooyu yëpp boo ko dajalee tey jii li li li li problème bi mooy dañ ciy dugg dugg ci ba mu yàgg dem euh, xaalis bi commencé ñëw. nga fàtte xasida yi tegee ko na le léegi nag jublu ci li lay may xaalis kase. te donte xasida yi boo yow bu ko jàng ngir di ko di ko wutee dërëm wala di ko wutee daraja mm-hmm. li Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waxoon ci vidéo boobu nga xam ne fan yi ñëpp a koy tasaare mm-hmm. mu ne yonent boo koy tagg da nga koy tagg ci namu mu toll mm-hmm. waaye di tagg yonent bi mel na kuy tagg buur sin ku mën doo fen kenn lu mu doon ànd koog yar wala tagg yonent bi di tiitaru biiñ fii lu nekk nga def ko yooyu itam wax dëgg yàlla du jekkul ci tàggkatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nañu jàngaat xasida mag ñi benn booy def chaque jour nga mokkal benn benn bayit mhm. nga jël xasida Serigne Babacar wala Seydou Hadj Abdou chaque jour nga jël benn bayit mais bu weer bi deewee dina fekk nga am ñaata bayit 30 bayit nga def ko weer bu ñëw nga def noonu chaque jour nga fexee mokkal benn bayit mais kooku boo paree at bi ñaata bayit ngay mokk ñaata abyaat ngay bokkal kenn kenn du xam nu mu toll moo tax li may soññaat daal suñu mbokk euh, sama mbokk yi mhm. ñi nga xam ne ñoom laa bokkal tëgg Seydina Muhammad mhm. nañu gën a gëstu nañu gën a jàng tabarakallahu jamono ngi ñëw ku ci ku ci gëstuwul jàngul walaay doo bokk ci affaire yi bokk ci affaire yi parce que doo booy xool méthode bi ñuy jël léegi mm-hmm. firikat yi nga xam ne da ngay taxaw ci tànt firikat ne la loo wax ci Seydina Muhammad mm-hmm. lu Seydil Haaji Malik wax nga yëkkati li Seydil Haaji Malik wax loolu boo ah. jàngul xasida doo ko mën waaw boo mokkalul abiyaat yi doo ko mën doo ko mën don moo tax ma ne des na tuuti ci kanam te léeg-léeg firikat am fu mu dugg sax tombeeg benn bayit mm-hmm. boo xam ne moom lay moom la maaseel mangook nga dugg fa rek yow itam yóbbuwaat ko feneen mangook waaw kay yooyu itam yooyu yëpp boo bokk moo boo mokkalul doo ko doo ko doo ko mën <laughs> ñu jël kooku ci ligne bi allo waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi ziar soxna si tur ah, ah. soxna Didi maa ngi lay ziar. ndeysaan. ñu ngi bu baax a baax a baax moom it ok la. Mhm, waaw ndeysaan. jërëjëf allah. amiin amiin amiin incha allah. amiin koy ñaanal. ndeysaan macha allah walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan amin ya rabbal alamin incha allah amin amin ya rabbal alamin amin incha allah amin amin ya rabbal alamin amin amin dëgg la xaqan xaqan walaay ndeysaan walaay walaay amin ya rabbal alamin amin amin <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan amin amin amin sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan macha allah wallaay ndeysaan ndeysaan alhamdulilah ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin soxna Didi wallaay ndeysaan incha <laughs> allah incha allah incha allah incha allah <laughs> jërëjëf kontaan naa trop yal na yàlla fay leen jërëjëf soxna Didi yal na yàlla barkeel yëpp incha allah waaw yokk yokk leen bi ngeen yokk macha allah wallaay ndeysaan mbokk yu yooyu yëpp mm-hmm. kon ni nga ko waxee léegi mu am solo mm-hmm. te defe naa yéen yi ku ci yemale sa bopp rek mm-hmm. doo mën a gàmm ay gàmm mm, déedéet ndax dafa pour ku bëgg a gàmm dëgg <laughs> wallaay foog nag nga dugg ci kàmm wallaay wallaay wallaay wallaay ndax xolal gàmm ni muy yàggee diggante minuit ba 5 heures du matin. ngay tagg Seydina Mohamed. te xasida bu daanu nga jël beneen xasida bu daanu nga jël beneen. mais kooku boo yemee ci déglu ay ay way rek di ko di ko wayaat mm-hmm. doo ko mën. Mm-hmm. doo ko il faut ñu jàng xasida yi. Mm-hmm. te jox ko xaqam. parce que xasida boo koy jàng benn sell gi. war na fee ne surtout loolu bu fi sell gi nekkul sellu sell li li laab gi ñuy wax laabu biir ak laabu biti. waaw laabal xol bi. tabaarakallahu sellal ko ba pare biti bi nga set. Mhm. civilisé <laughs> ah euh, sañse mhm. macha allah xeeñ ko foofu neex waaw bo ngoog waaw déedéet déedéet nga yiw macha allah kooku yaakaar naa ne bismillah bismillah ndeysaan <laughs> mhm. allo waaw sag bi yal na yàlla nangu ziar Assane Sarr la ngay woote <laughs> ah kon yéen xaman yéen xamante ngeen kon kon waxtaan leen comme xamante rek waxtaan leen ndeysaan macha allah Cheikh Assane maa ngi lay ziar sama maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax macha allah. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. amiin amiin. amiin yaa rabbal alamin amiin waay. wallaay ndeysaan. dëgg la xaqan wallaay wallaay yàlla ba mu ñu boolee yàgg na trop sax. waaw depuis ñuy xale ba léegi ñooy ànd ma moom. mu ñuy jàppale bu baax ci li ñuy def macha allah. kontaan. waaw macha allah walaay ndeysaan. waaw walaay walaay mu siitee. ndeysaan walaay ndeysaan. walaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf ndeysaan macha allah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan dëgg la xam naa naa waaw waaw walaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf macha Seyd Xasan. waaw waaw bég naa lool waaye bég nañ lool. amin yaa rabbal alamin amin amin asan amin waaye amin amin jërëjëf. walaay ndeysaan waaw amin macha allah amin amin yaa rabbal amin yaa rabbal alamin amin waaye jërëjëf asan wallaay ndeysaan amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf jërëjëf yal na yàlla fa aywa fi amaanillah macha allah macha allah jërëjëf baarakallah jërëjëf euh, kon ni ñu ko waxee woon léegi rek kon mhm. so aajo wul yi déedéet waaw sama classe gi bu ñu waree jug dem danañu puudaroo dinañu dugg ci li polèvre dinañu def ko rek daal <laughs> moom te xamuñu ni li jàng loolu leer la leer la bu yàggee ci yow rek def yow leer goo xam ne maanaam bët koy gis mhm, dëgg la loo xam ne nii lu ñuy lu ñuy dëgg la xaqan wallaay ndeysaan te loolu benn mag benn mag daf ma wax lu daf ma ci wax lu yéeme mhm. mu ne boo gis gisee yéen ñi nga xam ne yéenay nekk ci tagg yonent bi jàng xasida mag ñi mhm. jigéen ñi dañ leen di jublu dëgg la mu ne ndax ñaar ñoo mën a gis leer gi dëgg la waaw muy jigéen dëgg la ak euh, xaj mais mais léeg-léeg nga romb ci mbedd xaj taxaw gis la rek mbaw mbaw mm. mais du agsi ci yow mukk leer ga mu gis moo tax jigéen itam yàlla may na ko loolu ñuy gis leer gi mm. waaye léegi nag yow bu la loolu jëree jigéen ñi wut si la mm. nga mooy yàlla waxuma la dara waaye jox loxo nga jox loxo jigéen rek mm-hmm. sëriñ Habib Gaye mu xaddamu Cheikh Seydi Mahamad Mahamadul Mansour yàlla yàlla guddal fanam da koy wax mu ne nga nga jël nga jox loxo jigéen nga romb jigéen mm-hmm. ngeen joxante loxo rek ci saa si leeru Seydina Muhammad day rocceeku mu ne ci saa si leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day rocceeku du fa toog mu ne nekk ni ngay ni ngay duye leer ba fees mi ngi mel ni mhm. butéel boo jël def ci diwlin ba mu fees mhm. nga toj ci suuf nga toj suuf gi nee na noonu butéel bi eh, diwlin gi di yuree ko ba dara doot fa des mhm. nee na noonu la sa leer di yure ko ba dara doot fa des léegi ngay nekk foofu di reprendre à zéro mooy waral yenn yenn yenn yi di ci di ci am mhm. moo tax nañu gën a xam li ñu yor xam ni tagg Seydina Muhammad eh, xasida yi leer la mhm. leer la leer la te leer nag bu jugee bu leer génnee ci fu leer rek la war a mën a la war a mën a dugg léeg nga gis ku taxaw ci tànt way way way ba tant bi macha allah li mais kenn kenn du yëngu lan moo tax mooy moom moo koy way dese na koo gëm. Mhm. kon dese na koo bëgg. dëgg la parce que dañ naan way balaa muy daaneel kenn yow mi koy way lay njëkk daaneel très bien macha allah yow mi way yaa njëkk mhm. waaw euh, imam Ali bu daan xutba ba pare. Mhm. ndeysaan ci réaction nit ñi rek lay xamee ne moom mi ba xam li muy wax dëgg ci moom wala dëgg ci moom. ndax lu jugee ci xol rek ci xol lay jëm. dëgg la waaw euh, damay dégg ñuy wax lan moo waral oustaz Samba bi. da ngay tagg yonent bi rek wala <laughs> euh. ndax dafa am. au-delà de beneen mbir moo xam ne yaa ngi ci. waaw tax ñu naan oustaz Samba. waaw man nag yàlla dimbali na ma euh, maa ngi yor daara. ah macha maa ngi yor daara di jàngale alquranul karim fële ca ca Thiès. Mhm. daanaka loolu moo tax sax ñi may woo ñëwal Dakar ñëwal dakaar bari na lool mais daara ji moo ma tënk. fi mu toll nii période vacances rek laay am euh, sama sama jarbaar yi toogal ma fa mm-hmm. mu mën a daw ñëw Dakar mm-hmm. euh, bu weesoo loolu Dakar moom du ma fi bari du ma fi bari tànk loolu moo tax ndax daara ji moo ñu tënk te loolu mooy farata mm-hmm. ndax daara mooy base bi tabaarakallah sanal xaalixiin ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg a bokk ci ñi mu waxoon ñoo fi gën xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu beneen bi ci des tamit ñuy ñuy ñuy feeñ ci television yi muy jaaree ko ci sketch yi nga xam ne mi ngi am ci koor gi ndax wax ji bari na ci xam yi wax ñi yàqee diine waaye ñu ñu ne ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñoom ñooy ñooy ñi nga xam ne am nañu waaw ñu ñu jël kooku ba pare allo waaleykum salaam wa rahmatullah yàlla na yàlla nangu tur bi ak fan ngay wootee sang bi macha allah bismillah tur bi ndeysaan ndeysaan Atoumane Gueye macha allah radiyallahu ah, taala anhu sëñ Atumaan ndeysaan radiyallahu taala anhu sopp nga ko jara sopp wallaay ndeysaan mm-hmm. Mm-hmm. wallaay dara déedéet <laughs> waaw gisuñu mbay te mbay lañu gëm ndeysaan wallaay dara dara déedéet déedéet déedéet radiyallahu taala anhu wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf macha allah amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin

Ousmane Sonko borom daal di ndeysaan Modou Fall da Ndiaye Ndiaye ndeysaan macha allah allah incha allah jaajëf macha allah nañ lool macha allah mm-hmm. kon ni ko waxee woon léegi ak gannaaw loolu mm-hmm. aussi ak sketch yi am ci waaw am ci koor gi ñu ci ñu bokk ci benn euh, sketch bu tudd kër kër gi ak koor gi mm-hmm. ñu ci jàllale ay message diine waaw message yoo xam ne macha allah dañ ci yeete te alhamdulilahi rabbil alamin keroog dama ko wax bi ñuy tëj ma ne leen oustaz yi kaas gi ñuy kaas ci télévision yi dañu bàyyi ma ne loolu mënuñ ci dara dara mënatuñ ci dara <laughs> lii wax ji mooy def ni ma def mooy mhm. bañ cee am benn benn benn rëy mhm. dugg ci biir gaa yi ndax lii hadiyallahu bika rajulun wahid xayrun min ad-dunya wa ma mhm. fiha te alhamdulilahi ne dañ ci sant yàlla gi nga liñ ci am ci résultat wallahi alazim fan yi passé rek muy lendemain korité benn ki programme bu ñu doon amal benn ndaw daf ma dañu daf ma interrogé bi ñëwee mu ñu waxtaan ba pare ñu dem mu ne ma dama laa sopp te yàlla tax ma ne ko lu tax mu ne ma wax waxuma li ngay tagg yonent bi waaye à travers euh, message yi ngay jàllale ci sketch yi théâtre yi mm-hmm. mu ne dama cee dama cee dama cee mm-hmm. ndax daaw ma muuru te ci laa jaare di muuru macha allah ba tey ji loolu benn boobu rek jaroon na loolu rek ma na ko wallahi azim ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tabarakallah yàlla yàlla mooy loolu loolu moo tax ñu naan oustaz ah, kon nag macha allah kon man léegi oustaz laay wax ndeysaan émission dem xuus nag ci Seydil Hadji Malick ndeysaan nga bégal ñu ci ñu bégal ci soppe yëpp ndokkeel ci ñëpp ci bëccëgu démb bi wax dëgg yàlla ndax itam buñ ko toppee ci hijriya mm-hmm. démb la am benn siècle muy cent ans buñ ko toppee ci atum tubaab yi mm-hmm. démb la am quatre-vingt-dix-sept ans ci biir suuf te ba tey majhulul umma kenn xamu ko ndax ñun ñëpp kenn xamu mooy kan ba tey ñëw na daal delluwaat wilaayatuhu tabqa mada dahri bikratan usaanu laha asraaru baada irtixaalihi kon nag mi ngi noonu daal góor gaa ngoog kon dugal ñu ci góor gi rek <laughs> wada an kaati laylan ببقعة شمدي لحولة معت الصفية بك اسمدي وما قول الليلى والرباب وفرتنا wa ma qawlu hindin bal hasalma wa madadi wada zikra ayami siba wa layaliha wada anka tazkaral mughani li ghurradi ولكن تفكر كيف دجعت سيدي لدى رودي والقم آشال عنددي ولكن تفكر كيف دجعت وارث أبا الفيض قطب الأولياء ابن محمد ولكن تفكر كيف دجعت جيد حبيب قليل الكل برين ومرشدي talaata la Seydil Hadji Malick dem Barzak ñu ne Serigne Aline Guèye mu ni at mi Seydil Hadji Malick demee Barzak ku fab sa xalima sof ci daa bind te bindoo demuk siidil xaaji malik bi sa daha sa xalima yàqu na walakin tafakkar dijaat man mada ila rahmatil mawlal wafil mutasammide ne biñ ma tàggee seydil xaaji malik ne mënuma koo gëm waaye ma toog tuuti tiwaawan fes del ne jaaykat yi commencé tëj seeni bunt ñe ci laay door a ni nii bàyyi sëriñ Babacar si dem na barzaq def leen nii ci bàyyi sëriñ Babacar wa ulliqatil abwaabu doona tijaaratin waqad urjifal aqwaamu min ghaybi siidi ne ma toog tuuti ñu rob mu maag ñetti njaq bi ñu def ca ndoxum kase be ñu def ca ndoxum déem ñu def ca ndoxum gawe ñu ne ñangay ngay sangi seydal xaaji Malick ne mooy xuloog sangkat yi naan leen ki ngeen bëgg tuur ñetti njaq yi moo gën a fees géej te géej mënta paase tooyal tefes mhm. naan ko te siydil xaaji Malick mi li ci dënnam bi baaw na ba jël océan atlantique tooyal Amérique nan ko Sidil Haaji Malik mi li ci dënnam bi baaw na ba jël Méditerranée tooyal Europe naan ko Seydil Xaaji Malik mi li ci dëndam bi baaw na ba jël merus tooyal arabi kon bu ko ñetti njaq dee sang jox cër matière a tax wa min ajabin taxsiluhu lkulla qullatun wa fi sadrihi muus bi dee ne ñu jël Seydil Xaaji Malik tëral ci jàg ji ne mooy xuloog jàg ji ko yow bant bi muñ gi ci dënnug Seydil Xaaji Malik bi moo gën a diis montagne kon bu dammul yow bant bi yàpp ak dareet tax wa min ajabin xamlul ahilla bi naxsigi wa mahmulu صبرا ودان لجلمدي nee ñu jël Seydil Hadji Malick tëral ci buntu jàkka ji Serigne Babacar ni Mamor xujj si mhm. Ahmadoo la mook Ousmane mi jur Seydi El Hadji Malick ñoo bokk ndey ak bàyyi kon kaay jullee Maodo ne mu jullee Seydi El Hadji def ci bàmmeel Serigne Aliou Guèye ne ma dem dem samay tànk jaxasoo mënatumaa dem ma ne bàmmeelu bàyyu alxaaji Mansour si mi lan ngay wax addunyaa bi tey fa waajaban min ahsani durri xudtawoo mooy dariha abil mansuuri miqyaasu mukmidi تغيب عنا وفينا تفجع ترى صدفا في يتيم زبرجدي ndax ki nga jël tey suleymaanu amrin nan ko jëmm ji nga jël tey muusawiyun bi najdatin nan ko jëmm ji nga jël tey xaliliyu diinin nan ko jëmm ji nga jël tey sunniyul li muhammadi ñu ne Serigne Aline Gueye foo teg loolu mu ne Seydil Haaji Malick daa roy Seyduna Muhammad ras sunna Seyduna Muhammad ba nuru ko ci lépp Seydil Hadji Malick nee na yonent bi mën na maa gën a yaatu tànk mën na maa gën a gudd tànk waaye fu mu teg bosam bu ko teggee man njool faama bàyyi Serigne baaba si borom bone kaare beeg sakare yàlla bi man Seydil Hadji Malick di maa fa teg sama tànk du ma rax sunnaam benn yoon moo tax mag ñi nee nañ sunna dafa gàddu bagaasam ne di wër ku ko fat ne kër gu mu dem hmm, nga ne fëgg nga ne ko yow la kan mu ne la man la sunna nga ne ko aksil nga teral ko teeru ko teral ko waaye boo paree bàyyiwaat sunna mu dem waaye bi mu ñëwee ci kër Seydil Haaji Malick Seydil Haaji Malick dafa ne ko yow la mu ne ko man la sunna mu ne ko lu doon sa tànk mu ne ko damaa bëgg ku ma fat Seydil Haaji Malick ne ko yow mi bëgg ku la fat ak man mi bëgg ko mu fa <laughs> tëjal bunt bi du ñu boole kon ñëwal moo tax mu dëkkoo sunna moom Seydil Haaji Malick mu ne du ma rax sunna Seydina Muhammad benn yoon moom Seydina Muhammad sang bi Seydil Haaji Malick roy ko ci lépp moo tax Sidil Hadji Malick ma waxoon taalif bi ma ko taalifal maam Maodo Malick maam Maodo Malick maam Maodo Malick jambaaru diine mooy mam Mawdo Malik Usmaanay yaayam moo tax nga am lii tey mam Mawdo Malik yaa Ahmad Tidiane surtout yonel ba ci ndigalal maam Cheikhu Omar maam Maodo Malick xam-xam ba daa fis na ci dunya moom la nuy tiitaroo maam Maodo Malick te firnde yaa ngi fi feeñ ci sëtëm borom daara jeeg Serigne Cheikh Tidiane Mam Maodo Malick Abdoul Amina Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Mbaye ci barke Mam Maodo Malick ku ñu naw ci xam-xamam amel na la ndax ka ko jàngal ki leen jàngal mooy mam Maodo Malick wanoo ñu sa maam ndekon ñu topp la fàtte laa wu buur ak nabil mustawa mam Maodo Malick taatul hadi mahabbatu kada tibau alladi yati min al umami mam mawdo malik tàggat ruux yi ba ko ci xool tey gis ci sa leer guni daras mam mawdo malik tàggat nga ruux yi la ba ko ci xool tey gis ci sa leer guni daraas ma Maodo Malick defooy kiraamam ba di ko tiitaroo ndax danga xam ni xaydun lirrijal ma Maodo Malick doy na kiraama maam sa listiqaama gindi nga ruux yi gëlëmoon maam Maodo Malick tubaab bi yaa leen yim bàyyu Sidi Ahmad ndax lii ñu bañoon yaa ko taxawal mam Maodo Malick neexu la weddi maam ndax futuba bi dóor kooloo sam nee fa ala mam ah. Maodo Malick neexu la weddi maam ndax futuba bi dóor kooloo sam nee nga fa allah mam Maodo Malick zawiya ca Ndar Géejo zawiya Tiwaawan zawiya ca Dakar ak ba ca France mam Maodo Malick di sant yàlla moom mi ma may tey masad ay way ngir kan mam Maodo Malick man maa way maam man sàmm mbooñ mi yóbbaale géew kuy taalibeem mam Maodo Malick wax leen jërëjëf maam Maodo Malick jërëjëf maam jërëjëf maam Maodo Malick jërëjëf maam Maodo Malick acca kuy taalibeem waxali maam Maodo Malick macha allah jërëjëf xaaj kon nag yóbbaale nga ñu ki géew. ndeysaan ñun ñi nga xam ne nii daanaka bëgg nañu sant ay bayit. ndeysaan jéem ko way rek waaye ñu mutte ñu rek. wallaay ndeysaan kon nag ñun yóbbaale ci macha allah ni nga ko waxee yóbbaale nga ñun ñëpp. ndeysaan wallaay ndeysaan ndax góor gi ni ñu ko waxee sànq dafa mhm. yéeme. dëgg la suñu am Seydi Cheikh noonu la ko tuddee ca mhm. maj xoolul umma mhm. muy l'inconnu de la nation nga gis ni rek ñëw na ba ni mu delloo te mhm. ñun sax xamuñu ko moo tax ñuy wax ni mu doon wax ni wilayatuhu tabqa mada dahri bikratan tusaanu lahal asraaru baada irtihaalihi nen suñu maam Seydil Hadj Malick bi mu ñëwee wilaya biñ ko jox nee na bu doon bu doon séet la ni mu ñëwee doon jànq nee na noonu la ñibbee te te te daanaka rek <laughs> jëfandikoowul wilaaya bi moo tax mu ne wa kaana yara mustaamiran misla taalibin yu addabu hatta la yusi bi fi ali nee na Seydil Hadj Malick tubaab yi dafa leen jàppe woon comme ay taalibi mm-hmm. moo tax tubaab musuloo woon sax am pexe uh-huh. wala muy xalaat lu ñaaw uh-huh. di ko jëme Seydil Hadji Malick ndax bu ko xoolee rek am kersa wallaay lazim wallaay ndeysaan li daloon Seydina Ousmane ba bu dee dugg si yonent bi defaraat toogaayam saxaaba yi ne ko waaw lu sax ngay defaraat sa toogaay mu ne kii malaaka sax dañ ko rus kon nag naka laay fekkee ku malaaka yi rus uh-huh. man yonent bi du ma ko rus kon nag tabaarakallah Seydil Hadji Malick noonu la demee woon ak moo taxoon colon yi fi nekkoon dañ amoon moom ba munuñu woon xalaat lu ñaaw mbaa ñuy yëkkati lu ñaaw mbaa ñuy waajal pexe bu ñaaw mm-hmm. di ko jëme ci moom loolu suñu maam Serigne Cheikh moo ko bind mi ngi fi ca ara malikan wakaana yara mustahmiran misla talibin <laughs> yu addabu xatta la yusi bi fi'alihi tubaab bi sax dañ doon yaru ci kanam Maodo Maodo jàppee taalibe tabarakallahu kon nag macha allah góor gaa ngi doon daal xaaj uh, tey lii mm-hmm. ngeen yëngu ak yëpp mm-hmm. tey bu ngeen demee ci tànt yi di bëggal soppe yi mhm. ngeen seen nit ñi mhm. léeg nit daanu mhm. léeg nit am fu sori fu mu yegg loolu lan lay dellu def ko ci yéen euh, loolu daf ñuy daf ñuy daf may gën a soññ man daf may gën a soññ ci ma gën a góor góorlu ndax way yonent bi ba nit yëg ko euh, tax mu daanu ci leer tabaarakallaahu loolu yombul dëgg la loolu yombul comme li ma wax léegi rek day fekk ni ci xol ba koy way moo ko njëkk a moo ko njëkk taataan maanaam tey teylu ko mhm. tabaarakallahu jox ko xàq bi mu ko war a jox kon fa mu dugg rek xol ba mu jëm rek dootu ko mën a dootu ko mën a téye te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. euh, nee na man madaxani madaxan waaxidan faqat awjabtu lahul janna ku ma tagg benn tagg man sayyiduna muhammad maa la warlul aljanna mhm. kon nga tagg ni tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba euh, nit daanu ci leer tabaarakallahu te daanu leen nag daa bëri eh, façon de. Eh, waaw daa bëri façon façon bi ah, moom. am na ñoo xam ne seen jël dañuy ah, yuuxu. Ah, waaw am ñoo xam la ne ca seen possible la ñuy yuri. jox la am ñoo xam dañ la naan maala maala maala warul lii. nangam wallaahi lancé am ñu indi waaw. moom daal daanu leer bëri façon daanu leer moom kay bi ci bo bi ci baaxul rek mooy. bii daan kii daanu ba pare wut si la dóor la. <laughs> wut si la dóor la. baaru yàq jàng waaw doy doy waar day doy waar day doy waar wekki baas yeeg di di mbëkk tànk yeeg di tegale séeg yi. boobu moom moo xaw doy waar waaye kii am na ñoo xam ne comme ni nga wax dañuy daanu ñëw alal yi ñu yoroon dañ la koy joxaat dañ la koy jox tabarakallah am ñoo xam dañuy daanu may ci kër daanu may ci leneen ak leneen ak tabarakallah ahsan al xaaliqin ba bari façon waaye lépp rek ci wa sallam ñun lu rëy macha allah mm-hmm. dañ ciy bég dañ ciy bég dañ yàlla xam na ko day tax bu ñu ñu gën a góorgóorlu mm-hmm. namaat pas-pas yi namaat baat yi macha allah mm-hmm. gën a yaraat xasida yi ndax eh, ñu mën koo wax noo xam ne fa tabarakallah dina gën a neex nit ñuy ñuy yëg yonent bi sallallahu alayhi lan ngay wax euh, soppe yi ak tabaarakallaahu ñi lay bàyyi xel mhm. ñi lay encouragé foo toll ñi nga mhm. xam ne saa yoo génnee ñu ànd ak yow mhm. ñi nga xam ne it euh, day da nga leen di jaral ñu ñu dagg seeni nelaw waxuma yàq parce que nelaw moom ku ko yàq xëy na mooy ci leneen lu ko jarul waaye dagg seeni nelaw euh, ngir yow tey ñooñ lan nga leen di wax macha allah ginnaaw ba may wax rek laata may wax sama soppe damay damay sant sama waajur wu jigéen muy sama yaay soxna Abi Fall di ñaan yàlla na yàlla euh, may ko fan wu gudd may ko wér ba li ñu mébét ci moom fa tabaarakallaahu yàlla may ñu kàttan guñ ko àggale di sant itam fa tabaarakallaahu sama waa kër famille bi mm-hmm. ñëpp rek euh, di sant soxna yi sama soxna maa ngi koy sant mm-hmm. soxna Maguette macha allah ak soxna yi nekk ci kër ga yëpp macha allah mm-hmm. euh, di sant ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñooy sama àndandoo muy ñoo xam ne fa tabaarakallaahu ñoo bokk même objectif muy yàlla subhaanahu wa taala dox si lu neex yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tabaarakallaahu ku ci mel ni euh, ki doon woote léegi ñoom mun jaayeek ak ñooñu nga xam ne mag ñoom ñooy yarandoo mm-hmm. ba tey ñooñu ñooy sama staff dëgg la waaw ñooy sama staff ñoom ñoo ñoom ñoom ñooy euh, macha allah ñooy lépp daal. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoom laay àndal tabarakallahu di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. gis nga aw yi macha allah mu ñuy aw aw ak yéene. Mm-hmm. waaw dañuy aw ak yéene. surtout affaire bi daal ànd na. waaw macha allah bu am na synchro. waaw moom waa gis nga. daanaka rek ñoom ñëpp maa leen yar. ñoom ñëpp sama keppaar la ñu yaroo kii mooy seen mag Ibrahima Cissé moom bi muy nekk euh, tout ah, tànk ñëw fi <laughs> ci la ma ko papaam jox ak yaayam ñii ñoom ñëpp daanaka sama keppaar la ñu yaroo ñoom ñëpp loolu moo tax euh, soo ñu mëneen ci daal lu dul jàng ak euh, tabarakallah waaw kii ah Mouhamed Ndiaye waaw moom it yaayam moo ko teg sama loxo macha allah maam Abdou Mbodj sama jarbaal la waaw moom it bi muy tout tànk lañ ko indi si jox ma ko tabarakallahu Euh, kii Massar Sarr tabarakallahu moom it yaayam ñu ngi koy rendre hommage barka fan yee passé daanaka semaine la am rek ci la noppalu moom it bokk ci ñu ñu yar ci lii muy suñu yaay ndey Ana Samb di ñaan yàlla na yàlla def mu xippee aljanna ak suñu jur bi génn àddina barki démb muy suñu bàyyi Yousufa Ba mm. moom it ku sonoon ci uh, tariqa bi la ku sonnoon ci diine ji mm. bëgg njaboot macha allah ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal muy uh, ñi nga xam ne ñooy uh, mooy chauffeur bi Souleymane mm-hmm. Mbodj ak sama rakk la <laughs> ak Samba si moom it mi ngi fi fa tabaarakallaa ak ñeneen ñi nga xam ne bëggoon nañ ñëw waaye comme ni nga ko wax rek jotaay moo yaatoo moo moo moo moo ni tëddee tabaarakallaahu di euh, euh, ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ñuy bégee di ñu taaxirlu nga xam ne fu ñu dem rek ñu fekk ñu fa wallahi am na ñoo xam ne fu ñu yëg ni Samba Mbodj ma nga fa rek muy gàmm muy tàkkusaan muy lu mu mënti doon rek ba ci daayira yi sax bu ñu yéene Samba Mbodj moo fa nekk rek dagg nañ seen yitte yëpp ñëw taxaw dég déglu la ba pare boole ko yëkkati seen alal di la jox kon ñooñu amoo seen fay ba pare loo taxaw loo xew la rek tabaarakallaahu dañ ciy taxaw ba jeex ci takk takk takk takk takk mm. muy groupe whatsapp yi nga xam ne ci laa bokk sama groupe whatsapp soppee Samba Mbodj groupe doyloo seexal xalifa ak groupe soppee tafsir Abdourahmane Gaye 100 pour cent maam Maodo ah, ak yeneen groupe yi ah, nañu gën a warmaal Tiwaawan ngir jëmmi Seydil Haaji Malick mhm. ak 100 euh, pour cent maam Abdou tabarakallahu ak euh, yeneen groupe yi nga xam ne bokk nañ ci ñu ñuy bégee ak sama fan si club yi xale yu ndaw yoo xam ne depuis ñuy xale la ñu nekk ci man lu ma xew la dañuy mel ni comme ay soldat wallahi damay mujj di rus sax di leen yërëm mais ñoom macha allah mhm. yàlla moo ma leen tàggatal tabarakallahu ñu bëgg ma te yàlla rek tax di ñaan yàlla eh, yàlla na yàlla euh, yokk seen seen seen i seen i mbir yàlla ubbi leen defal leen fatxu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mënuma tëj te santuma ki nga xam ne tabarakallahu kilib yi ñu def yëpp mhm. dafa jàpp suñu carrière muy mhm. Serigne Habib Gaye suñu wayjur moo ñu boole woon moom mooy suñu baay Ibrahima Mbodj moo ñu boole woon ak moom suñu sa borom daara ji waaye clip a ñu ak chauffeur am yóbbu bu jot mu woote benn télé tegal mu clip bi nangam mm-hmm. sangam kooku itam xam nga wax dëgg yàlla mi ngi lay jàppale ci sa carrière moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ne moom lay tabax ak mm-hmm. université tabarakallahu ci aaju yëpp yàlla na yàlla may ko carte bu ko àggale di kontaan ci ki nga xam ne moom a booleeg yow mun naa ne moo tax li juddu muy Pape Diagne <laughs> nga xam ne waaw moom ñoo bokk dëkk Thiès <laughs> waaw muy ku baax tabaarakallaahu moo ñu boole maag yow euh, ba yàlla doxal jotaay bi yow it bi mu ñu boolee ngay ku disponible ku mm. ubbeeku macha allah mm. yi seen affaire la télé bi seen télé la ah, te loolu moo fi am <laughs> Mourchid allah waaw walaay ndeysaan walaay ndeysaan ñu ngi kontaan trop ñi mm. woote ak ñi bëggoon woote te mënuñoo woote ñëpp maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla. ñàkkul ah. nag am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu bëgg laa jot. Mhm. wala it amuñ fuñ la joteeg yooyu. Mhm. Euh, ku la bëggoon a jot it nu muy def. waaw man moom euh, jot ma yomb na xëy na ñi nga xam ne jotuñoo am numéro bi. Mhm. waaye man moom li may wax rek. mooy nëbbatuwuma làqatuwuma tëjuwuma ndax ku nekk ci lu bon mooy nëbbatu da da mel na kuy fees fas rek waaw bongo waaw la imam Samba Diop wax naan mel ne kuy fees fas bongo kuy fees fas moom munoo da nga naan fàng rek da nga waaw moo tax euh, am na ñoo xam ne léeg-léeg dañuy jokkoo ak ñun nañu euh, bëggoon naa ko mais damaa foogoon ne bu ma la kiiwee dooma bu envoyé message dooma tontu wala bu ma la wooyee dooma jël waaye ñun ku ñu woo insha allahu rabbula fekk ñu am jàpp ñu defuñu dara soobee yàlla dinañ la wuy wuyu ku ñu envoyé whatsapp bu soobee yàlla jàpp ñu defuñu dara danañ la tontu loolu mooy nit sax waaw du ñu xaar ma ngoog parce que itam li ñu li ñu ñu mel nii ginnaaw yonent bi ah, sallallahu alayhi wasallam nit ñi moo tax tey bu ma taxawoon fii rek taxaw ci digg mbedd mi génn ci ni begen tax ngar sama loxo rek dar sama bopp di yuuxu dañ naan kii sàmm boj dof na waaye bu nit ñi ñëwee taxaw ah. di la suivre ah dañ naan kii doful li mu nekk euh, dëgg la mm-hmm. moo tax ku ñu bëgg a jot incha allah woon ci 77 388 03 01 388 77 388 03 01 incha allah. macha allah ñu ci kii rek dinañu jot lu <laughs> soobee. jërëjëf oustaz Samba Mbodj ñu ngi koy mm-hmm. sant bu baax a baax. mbokk yi tey moo nekkoon sunu gan seen émission Al Badr mm-hmm. kon nag yi yi noonu la tolloon ñu bëgg lool ci moom macha mm-hmm. allah ak euh, mbokkam yu baax yi nga xam ne ñoo ko gunge si ak it ñi koy xaar yëpp rek tabaarakallahu ak ñi jotu la ñëw. ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ni bëgg nañ ci euh, yéen bu baax a baax xaaj di la sant di la jaajëfal di la ñaanal yàlla yàlla yokk la yàlla dolli la taxawu te dolli la sàmm incha allah rabbi yàlla yeggali mottali mbébét yi yàlla it uh, sàmm leen ci biir ak ci biti ngeen delluwaat ci jàmm incha allah yàlla defal leen tawfiq ak sutura ak mboolem ñi nga xam ne rek uh, ñoom ngeen ko bokkal uh, ñi ngi jaajëfal baax ñi ñu àndaloon ci liggéey bi na Ousmane ñoom soxna na ñoom Thierno Janka Omar ñoom ñëpp rek ngi leen sant soxna Fama ak Al Amin Gueye yal na yàlla fay leen yiw mbokk yi tamit yéen it yal na yàlla fay leen yiw ñu leen jox daje incha allah ma bii ñu jëm incha allah seen émission Al Badr ak beneen invité wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu